avril AVC ñuy sàkku ci ki nga xamante ni dafa amee AVC wala sax ki nga xamante ni amu ko muy faral di jëfandikoo ñam yoo xamante ni saful lool xorom niinul mbatt saful it bu baax a baax suukar waaye ñu di lépp luy stress ak it bouillon yi ñu teewlu ci Bamba Cissé moo di président bu association sénégalaise bi di xeex lépp lu jëm ci wàllum AVC yi. waa régime bi nag moom ki def AVC moom daanaka dañ naan def na ko ba pare waaye dañuy bañ sax mu defaat ko. moo tax ñu koy wutal régime waaye li ñuy bañ ci moom moom la ñuy bañ ci ñu ko defagul tamit mooy lekk gu bëri diwlin niin batt lekk gu xamante ne dafa bëri xorom muy weex xàtt ak xorom wala lekk boo xamante ne dafa bëri suukar mooy saf sàpp loolu tamit nekk na yoo xamante ne ni kenn waru koo def ku def AVC ak ku deful AVC ba pare teg ci di naan ndox mu bële kon bu ñu xoolee régime bi mooy montinu ko lu niin batt ak li nga xamante ne dafa saf sàpp ak li nga xamante ne dafa weex xatt xob yooyu buñ ko montoo di naan ndox mu bëri ba pare di yëngu di yëngatu di tàggat sunu yaram di yëngal sunu yaram ba pare di nu ko lii di stress daanaka loolu mooy régime bi nga xamante ne moom la ñëpp war a ku ko def ak ku ko deful. ñu fàttali leen ni jamono gi sax ñu ngi amal campagne boo xamante ni ñu ngi ko duppee Afrique Avril AVC jaajafal naa leen ci déglu bi fii lañ koy ndar képpee dig daje ci beneen numéro.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 Bonjour. Dans la lancée de la campagne Afrique Avril AVC, il est recommandé aux personnes atteintes d'AVC et même ceux qui ne le sont pas de manger moins salé, moins gras, moins sucré, mais aussi éviter le stress et les bouillons. Écoutons Bamba Sissé, président de l'Association sénégalaise de lutte contre les AVC. Le régime qui est recommandé, c'est toujours de manger moins gras, moins salé, moins sucré. Et ce même régime aussi, il est préférable de le recommander pour ceux qui n'ont pas fait d'AVC. Parce que le gras n'est pas bon, le salé, euh, trop de salé aussi n'est pas bon et trop sucré aussi n'est pas bon. Parce que les facteurs de risque qui peuvent donner l'AVC, c'est l'HTA. comment la survient chez les patients. Il y a aussi le diabète, on sait tous comment survient le diabète chez les patients. Donc il faut éviter le sucre, il faut éviter le gras, il faut éviter le sel, il faut éviter aussi euh, le stress. C'est à éviter parce que ce sont des facteurs de risque qui peuvent donner l'AVC. Donc concernant le régime, il faut avoir une bonne alimentation et suivre aussi les médicaments qu'on vous a prescrits. Pour rappel, présentement se déroule la campagne Afrique Avril AVC. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour un nouveau numéro.